waaw bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala saydina wa maolana mouhamadin al mahdi al mukarami wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman tey jii di samedi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet deux mille vingt et muy samedi bi jiitu ginnaaw tabaski comme niñ ko baaxoo defee ñëw fii ci ndingala nga xam ne maam Baye Laye alayhi salaam moo ko sancoon tudde ko Kem Medine muy daaru ijërati di dëkku way gàddaay ndax boobu mu ngi bëgg a rawale Euh, diine ji nga xam ne moom la woote fii aaxiru zaman te yoof gamu cosaanoo xat na fa waaye mbokkee jaxas nañ ko ak noon ye jaxas nañ ko ak nasaraan ba loolaa jural li sang bi doon nettali sànq muy euh, pexe mi doon fexe pour faagaagal ka te moom suñu borom xamal ne que noonu yaa ngi ñëw mu laaj saabaam yi na leen bu nit ñëwoon ngir bëgg maa sàkkal pexe nu ngeen def ñooñu nekk kon suñu bakken lañ ciy teg loolu nag ba nu ñëwee la ñu jéem mooy taal këram tàkkul ndax loxoom la ci jël teg ca ñu dellu taalaat mu leen du takk teg ci loxoom mu fay ñu génne pistolet mu dëkk noppam ñu tiire takkul mun leen du takk ñu tiire waat tàkkul ñu génne mënat mu tàllal loxee ñu ceene mu tudde yàlla subhaanahu wa taala ceen nga wadda kooka njaaxle daal di kay song maam Baay Laay yenu ba ci kaw dóor ci suuf gawar ga nekkoon ñeent fukki espace ak benn noonu la ñu battre retraite daal di daw ba fàtte fa chaine ga nga xam ne gii mu ngi ko jox ab jarbaatam Mamar Diagne mu delloo leen ko loolu nag mu ngi xewoon le 7 septembre 1887 waaye ndekete boobu euh, gaynde dawul dafa wuti doole ñoom tubaab bi nag ci lañ jëlaat nag beneen pexe pour ñëwaat nag de manière plus engagée loolu c'était le 10 septembre 1887 maam Jali bëgg Serigne Ndakaaru jéem na def intercession pour bëgg rek euh, euh, ñu juboo moom Mbaabale ak euh, noonam yi mu nekk dama bëgg nga delloo sa taalibe yi ma ñëw ma jubaale la ak tubaab bi mu nekk man méddum yàlla bi nu may def tani yàlla yi loolaa waral jubaatle boobu bu jur sotti ca bëccëg waaye suñ borom xamal nekk ne kat baa ngi ñëw kon génnal yoof génn googu mu génn yoof nag ànd ak euh, taf Cerno euh, Saar Coom ak Ali Mbaay Demba Mbaay ci la topp nag penku bi nii ba àgg Ngéjaga mu def fa ñetti fan feeñu leen ndax yërmandeem ju yaa le 14 septembre 1887 ñu soog koo jàllale pour mu dem nag gore bi mu demee. ñu interné ko fa pendant trois mois ba finalement euh, instruction bi génne non-lieu le juge Gilbert Devalon daal di def un non-lieu ordinance de non-lieu mu jóge fa nag dem kër Thierno Mbaye Sylla def fa juróom-ñeenti weer ba mu fa jógee nag la ñëw ànd ak Thierno Mbaye Sylla ci ànd ak Thierno Sarr Thiom sànce béréb bii kon fii ñu nekkoon di ndingali mooy Cambérène gu njëkk àndaale mi mu fi dajaloon moom mooy guy ga guy googu rek ñu xam ne moom mooy insigne bi policiers yi tapp ci seen yére yi loolu mooy symbole bi bi ci des mu ne kii de sama àndaale ba ci des mooy teen ba àndaaleem la bokkoon ak tund wi nga xam ne tey maasal nañ ko tam fa daan daje ak taalibey jinne yi mag ñi nga xam ne ñu lu ñëw rek bàyyi koo waalo ñi bàyyi koo paal ñi jóge njàmbur ñi jóge gànjool ñi jóge kajoor ñoom lañu dalaloon fii mu nekk dëkku way gàddaay yi mu daje fekk ay mag def fi ay mujisa yu baree baree bare mag ñi wax nañ ne bu daan dox fii sax lu mu tàng tàng moom tànku nañ lay def waaye day mel ni glace suuf si day sedd guy mel ni glace loolu maam Seydina Limaamu Laay diggaale na ko fii. dëkk bi doon nañu togg xorom manqué ci dëkk bi mu yónni maam mataar Fall te boobu mu ngi toll ci guy gi di yéeg jëm ci kaw tund yi foofu le maam Matar Fall dem na fi ndakaaru jënd xorom ba indi ko te maam Baye laa ci kaw tund wi loolu nekk tamit kéemtaan gox maam Matar Fall nag moom ak Cheikh Ibrahima Fall jëwriñ sëñ ñoo bokk benn baay Amadou Fall moo leen jur Amadou Fall Cendeele Fall fële ca Ganjool fa lañ bàyyi ko kii dem njaarim topp sëñ Touba mu Cheikh Ibrahima Fall kii ñëw ànd ak ab jigéenam biti loxo Fall euh, ñu jox ko Thierno Sarr Thiom mu am ci Ablaye Gote biti kon loolu tamit nekk na fi ci ay mujjisaat fii tamit fi la bàyyi laay daje woon ak Mamadou Sow nekk Mamadou koo dajeel nekk du feeñ na fii tamit waa Kajoor ñoo fi jiitu woon boobu juróom-ñetti néeg moo fi nekk mbana benn mbana lañ daan togg waa waalo bi ni ñëwee dañ leen a mbaaral ba ñoom ñu bëgg fee bàyyi seen ngëm waaye nag delluwaat ci dëkk bi bàyyi laa leen toog leen lépp dina leen fekk fii effectivement lépp fekk na leen fii ndax 1971 ak léegi yaa 50 ans bi ñaari ndawi Cambérène ma ma ma kii ma jóob ma jóob ba ak benn xaritam ñooñu ñoo bës bouton yi ci stage bu ñu doon def fële ca ngiic bouton bi ndox mi ñëw ndakaaru ba nëgëni si muy ndox mu neex moom xéewal yi ñu jox leen ci tool yi jox leen ci kër yi ñu nekk fekk maam Bayla la Islam am mag ñoo xam ne ku mel ni maam ma yónni loon ak moom delluwaat na looyeen ba fa la génne àdduna maam gay Diop delluwaat na ndànd ba foofu la génne àdduna te kii di sëñ Mamour Diakhaté delluwaat na ngaa xam ndax dañ ne kon dellul ndax keroog njool may riñaan muy Seyna Issa Rouhou Laye bi mu gàddaayee dem Beyti Mahmour mu dalal ko mooy mu nga génn àdduna foofu ca Kajoor kon daal mag ñi fii lañ doon daje moo tax dëkk bi na tey nekk ab gent ndax bay Laye alayhi salaam bu ma di dem Yoof day talu dem bu dem géej bu ñëwee ba toll fii Cambérène mu ne ndax am moos ndax am moos dëkk baa ngi nii. foofu nag ci peste bi nag 1914 la ko Nabilaay Issa Roowalaay kay kuutaayam ñëw sanc dëkk bi fii mu nekk ci booru géej gi muy Cambérène ñuy ñëw nag di def clusiar fii ndax junni at ak ñeent fukki at ñeent téeméeri at ci ginnaaw muy cent ans ku dem Makka di nga dem dans la banlieue médinoise def li ñuy wax kullu ziar dinga dem ci jabalu Uhud di nga dem ci masjidul Xiblatayni di nga dem ci masjidul Xubaa muy jàkk ji yonent bi njëkk def foofu ci Médina waaye jàkk ji tamit moom la maam Seydina Limaamu Laay alayhi salaam njëkk def fii ci saw jant moo tax ñu di fii ñëw di fi barkeelu di fi julli julli farata muy tàkkusaan waaye fële ku dem naafila nga fay def moo xam ci masjidul xubaa la wala tey xiblatayni kon ziar boobu ñuy def foofu ca Medina mille quatre cent ans ba nëgën si kon cent quarante ans ginnaaw woote bi ziar boobu moom la ñuy def si fii barkeel ci béréb bi nga xam ne li ko symbolisé woon mooy guy gi guy gi daanu na kem mag ña saaba ya àndoon ak bàyyi laay naka ñu daanoo ka doon symboliser di béréb bii di Baye Ablaye Fall bés ni ki tey bii passé mooy ay bés la génn àdduna ju denc ka tey jii di première samedi ginnaaw ki ñu ñëw di ziara tombeek moom mu wuute ko pour la première fois ñu ñaan suñu borom ba subhaanahu wa taala mu dolli ay xéewalam dajale ko yërmande suñu borom ba ci darajey maam Seydina Limaam Mahdi alayhi salaatu wa salaam sant nañ yàlla nag bi nga xam ne bii teral nañ mbir mi fii ñu denc taawu maam Seydina Limaamu Laay alayhi salaam mu soxna amaanatu laay bi denkoon dénkoon tafsir Ablaye Diallo mu am ci tafsir Babacar Diallo mu bokk xarawdu bi ak maam Aminta Diop ñu di ko wax maam Toob kenn la woon ci jee maam Limaamu Laay alayhi salaam moo daan teen xool asmaaw daan ne nangami nit ñu ngi ñëw ci dëkk bi lañ jëm si wala mu teen ne nangami nit ñu ngi ñëw ci kër gi lañ jëm si ko defee ñu yokk leen ab sóor kooku jigéen la woon waaye suñu borom joxoon na ko googu may. waaye tafsir Mor Ndiaye fii la daan daje ak jinne yi di waxante ak ñoom jinne yooyu nag maam raan bés mbooloo mi dañoo war guy gi xale yi di coow mu ne leen déglu leen te ngeen noppi na ngeen yaru ndax ñeneen nañ fi ñu dul yéen te ñoo leen gën a yar ñu ngi ne teg mbooloo mi daal di ne xeram jinne yooyu nag ginnaaw bàyyi lay foote nit ak jinne moo tax bi ñu daalee montagne bi ba Ablaye Fall daan wax naan euh, jinne yaa ngi jooy guddi gu jot allah rawati jinne ju mag ji kon nag ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di ñaan suñ borom ba mu dajalewaat ñu fi dewee nag jàmm gën jaa rafeti daje ànd ak wér ànd ak sutura ànd ak taranga wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yàggal fi suñu xalifa Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye xalifatul muslimin barke Baye lay war may roowalaa isa alayhi wa salaam